mbas mi nekk feebar gu jaaxal ñu bëri ba tax na ni liggéey yu bëri taga bi na rawatina ñi nga xamante ne ci secteur informel la ñuy yëg tey nag dañoo dem seeti ñi nga xamante ne daanaka ñooy jaay ay téléphone portable waaye itam nekk ay maquette man fële ca ca Colobane xool seen jafe-jafe ana naka la amee seen matériel yi nan la ñuy def ba jaay ko ci jamonoy mbas mi ana lan mooy seen jafe-jafe ñu tataarlu seen i kàddu ci micro Leral TV. récupérer ay téléphones yi yàqu di dajale leen euh, jaay seen pièces yi quoi waaw. si mbas bi jafe-jafe bu ñu si am bëri na torop torop torop ndaxte léegi instant yi ni clients yi ñëwatuñu ba pare ñun dañuy gaaw dañuy teel a wàcc quoi boo xoolee clients yi parfois ngoon la ñuy faral di ñëw mais si instant yi nii balaa 5 bu jotee rek doo gis benn client client ñëpp ay dem donc jafe-jafe bu ñu am bëri na torop mënuñu mënuñu wax lépp daal. maquette bi ah léegi ma bëgg si yàgg de xam man moom tailleur laa quoi ay tailleur 217 laa mais comme Sénégal moom liggéey bi doxul fii xam nga tailleur bi doxul. léegi nag foog noonu fii fi nekk ñëpp ay borom métier lañ mais seen métier yi doxul loolooy waral ñu ñëw fii taxaw di jël téléphone comprendre da ngay jënd ci bitig yi téléphone bu bees ñëw taxaw léeg-léeg kenn jóge ci koñ bi bëgg a changer téléphone am teg dara comprendre nga nga changer ñëwaat boobu jaay am dara weccet yóbbu loo yóbbul sa njaboot looloo ñu fi bàyyi ah. expérience bi ñu ci jëlee bari na trop parce que chaque jour looy liggéey. sa xel di gën a évoluer ngay gën a comprendre di gën a xam ay secret yoo xamante ni bii xamuloo ko woon quoi. si si am na risque am na risque bu bari bari parce que souvent nga defal ko lu jàmbur xam nga mu daanu si yow écran bi toj wala mu am benn problème boo xam ne du neex a defar da ngay mujj obligé jël sa xaalis dem jëndaat. yaa ngi dégg defaral ko li mu la doon fay sax yow da ngay dolliwaat foofu xaalis pour man koo libérer quoi pour client bi mën a kontaan. bi don la man quoi. mu ko judduwaale. nan ngeen di def pour jënd wala. lay jënd dajale la parce que am na pièces yoo xam ne amu fii ci marché bi léegi ñun ci yooyu la ñuy profité mën a jaayat pièces yooyu pour mën ci gagné dara. waaw loolu loolu parfois day am day am loolu moom mënul ñàkk day am foo mënta nekk rek ak liggéey boo mën a door rek xam nga rek day am quoi mais de toute façon dañ koy dañ koy gérer quoi dañu koy gérer lu mu mën a demee dañ koy gérer noonu quoi ñu xool luñ koy defee quoi bu dee boromam moo ko moom delloo ko ko affaire bi noonu la ñuy liggéey quoi. bu guro moom foog mu am yu sànqal waaw foo gis groupe ñu baax foog foog mu am moom mooy loolu mais loolu doo ci mun dara quoi mais am na ñoo xam ne boo leen xoolee sax xam ne ñii lu leew la ñuy dundee comprendre nga. mais am na ñoo xam ne tamit mënuloo leen dara ñoom xam nga doo comprendre daal mais ñun li ma la wax nii loolu la ñuy def dañuy jënd ci magasin yi xaalis bu weex dal bu bees ci paquetam kenn jóge ci koñ bi yore portable nga xool ni lii portable am la mu teg la xaalis nga am ci weccet. non ñun liggéeyuñ noonu parce que ñun suñu liggéey moom réparé rek la sa téléphone day paan nga ñëw ñu defaral la ko nga dem wala soit que ñu jënd ay téléphones yu yàqu ndabar yi nga xam ne dañuy soxla pièces yi. ñu teg ko fii boo ñëwee di defarlu ñu jël benn pièce foofu noonu monteel la ko ci sa téléphone quoi noonu la ñuy liggéey. ay phone bay non loolu moom ñun duñ ko defar parce que ñun duñ ko defar ñun réparer rek la ñuy def quoi loolu ñor machine ñoo koy man te ñun yoruñu machine ñun réparer rek mooy suñu liggéey su ma morom jaaykat yi moom vraiment vraiment lu ma gis fii moom Colobane fii moom macha allah parce que boo xam ne parce que boo xoolee. gars yi bëri réparateurs yi bëri ñu nekk fi Dakar fii ñu bëri fii la ñuy ñëw di jënd ay bagages di sakku ay xam-xam ay réparation xam nga maanaam Colobane moom macha allah. yee laal nañu trop mbas mi laal nañu trop parce que boo seetloo comme ñun heure bi ñu doon wàcc muy 17 heures heure yooyu la clients yi doon ëpp. mais léegi heure boobu presque dangay ngay xëy ni journée bi nii doo balaa heure boobu noonu doo gis benn client. dangay mujj obligé noonu ngay ñibbi waate quoi en même temps li si gën a gën a metti mooy que matériel bi ñu doon jënd di ko liggéeyee matériel boobu noonu dafa gën a cher parce que am na écran yu doon jar huit mille léegi douze mille lay jar bi doon jar ay vingt mille léegi day jar presque ay vingt quatre mille vingt cinq mille dafa metti si ñun te client yi duñu comprendre lool parce que client boo taxawal ne ko boo ko masee defaral écran bu ñëwaatee bëgg nga defaral ko boo ko waxee affaire dafa yokk du ko gëm quoi. mu ne kon ay kàddu yu am solo yu ñu fa jëlee ñu mën a jàpp rek ne ñoom itam dañ cee dañ cee sonn bu baax te itam ñuy ñaan rek nguur gi jàppale leen ci bu baax a baax waaye itam di gën a ñaax seen moroom ñi nga xamante ne daanaka ay maket maan lañ seen moroom yi nga xamante ne jënd ak téléphone mooy seen métier ñu gën jàpp rek ndax dara yombul